mbokk yi ni seetaan ci li nga xamante ne moom mooy suñu rubrique c'est pas sérieux xam ngeen ne nag vendredi bu nekk dañuy waxtaanee tolluwaayu réew mi di leen xaarandi ci li ñu téléphone bi mun ngeen def dièse 239 teg ci étoile virgule ak point interrogation ngir ko nga mën a dugg noonu daal lan ko fas yéene fi mu ne ngir waxtaane li nga xamante ne moom mooy tolluwaayu réew mi kon mu mel ni sax am na ku nekk ci li ñu téléphone bi salaamaaleykum. waa jaaf gannaaw. Mhm. man ancien détenu la quoi. mais li mhm. nga xam ne moom laa gis ci prison yi condition yi dafa métti mhm. dafa doy waar mais imaginez ñun ndambe rek lañ doon dund ñu mhm. prison bi quoi xaw ma nag Sénégal kañ la ñuy dund ay miches yi ci biir prison yooyu quoi nan xoolaat condition détention yi sëñ bi ndambe foo dem ma nga fa bu yéen ñi ci prison yi rek ay xëy di dundee ndambe xëy na nag aussi ak prison yu bees yi nga xam ne wax nañ ne dañu koy tabax fële ca boori sëbi ah dégg nañ ne di ngeen nekk ci condition yi nice par rapport ak yi ngeen doon dund da ngeen am frigo baar ci biir am seen clim di xëy di lekk chaque jour lu réel benn détenu xar yéen daal euh, yàlla baax na daal ñi nga xam ne nag joom moo leen fa dugal aussi yàlla na leen fa yàlla génne wax dëgg fa yàlla waa internet ak lépp di ngeen fa am internet am fa voilà merci ba tey mbokk yi mën ngeen jëf dièse 239 teg ci étoile virgule point interrogation ngir ko nga mën a dugg bu mel ne am na keneen ku nekkaat ci ligne bi salaamaaleykum. eh bonjour. ça mhm. va ah def. waaw oh, man li nga xam ne moom laa bëggoon wax moom mooy affaire mhm. pétard yi nii. xam nga xale yi aussi. Mhm. vraiment dañ lay déranger et puis dañ koy taal ñoom duñ sóoraale. ñu ci bari nag ci parents yi la. xam nga boo amul njëgu kado lamba sa poos génn sa weccet jox sa doom naka jëndal pétard. déranger waa koñ bi parents yi la rek wax dëgg fa yàlla xale yu ci bari seen ndeex seen bàyyi leen di jox weccet woow nuy tànkal nit ñi mu kilifa rek hmm? def jees 239 teg ci étoile virgule point interrogation a dugg mu mel ni am na keneen ku nekkat ci ligne bi salaamaaleykum mu jël ci mujj allo. amee grand. Hmm? Euh, vraiment. waaw euh, benn melokaan bi quoi. Hmm. ay yéeg ci ah, gis ma am ak da ko war a may mu. ma toog quoi vraiment. Hmm. yërmande am na ñuy dawal yërmande quoi. màgget bu ngeen bokkale ci bis bàyyi leen que mu taxaw a taxaw ba tànk yi new yi damaa xam ne mun nga mag màgget ah yéeg ci bis yi di xool nit ki ba ci jugal may ma ma toog sama doom ah maire yu màgget yi nanuy toog te ci bëri bu ñuy génn kër gi sax kenn du leen yëg dañoo bëgg a dem ah. yow dugg nga ci bis bis mu xat ñun ñaa ngi langaamu jàppandu fu nekk ah da ngaa mën a jàppandu. yow bis bi dèjà bu freiné rek nga nga tartar yi ah yéen daal su ma bàyyi leen mag mu taxaw a taxaw ba tànk yi néew bu ëllëgee bu gisee bis bu fees dana bàyyi mu romb xaar beneen bu ñëw mu arrêté yéeg voilà merci tout le monde ah yow tu koy wax chaque jour caméraman yëpp yaa ci dàq filmé wax dëgg fa yàlla li fi nekk ci télé Sénégal ah ngilaw li yow këf ka dem na di